sénégalais seeni doom tiit nañ jaaxle nañ soxla nañ dimbal yooyee sénégalais mooy ña nekk ca Chine ci dëkk buñ naan Wuhan dëkk boobee fala jàngoro bu yees bi ñuy duppee coronavirus soqe ko kenn ci ñoom di ñu wax nañu fay dundee ak bile jàngoro ndimbal lañ soxla quoi ci gouvernement Sénégal nu ñu mën a dimbalee bañ mën a génn fii ñu nekk euh, di Wuhan ci province su Hubei de épicentre bi fu affaire bi amee parce que situation yi xaw na décanté wu situation situation yi xaw na xaw na xaw nañoo ëpp loxo quoi xaw nañoo ëpp loxo parce que wax nañ ñu ci war a waxal depuis lors ñu ngi ci déglu suñuy ambassade ci consulat mais mun naa ne amuñ retour buñ buñ ci soxla quoi parce que amatuñ temps parce que le fait que ñuy gën di dem maladie bi di gën di propager wu ñuy gën a am moindre sens pour génn fi ñu nekk parce que n'oubliez pas que fi ñu nekk muy Wuhan dañoo lockdown like dañoo tëj mënatuñoo génn tu na pas le droit de sortir donc pour ñun étudiant mënatu fee génn tant que sa autorité deful ben relation am relation ak euh, étatique diplomatie pour nous sauver parce que nit les États-Unis ont ngi ces ngi répatrier ressortissants les Français war quitté quitter le 28 donc euh, on attend les les informations et aussi les Marocains aussi quitté. nañ ngi wara wara quitter ngi ressortissants pour les ni quitter donc ñun hier, on avait pas mal d'appels venant les autorités, les journalistes, comme vous le savez. Mais au Sénégal, dañuy wax rek mais jëf duñ ko def donc d'ailleurs am na ñoo xam ne dañ lay woo bëgg di la wax loo nous nous nous sommes apolitiques on n'a pas le temps de faire la politique parce que on risque, la vie et notre vie est en danger. Nous, ce que nous voulons, c'est juste que nous nous aider, nous gagner nous. Fi même si nous mettons quarantaine, dans une ville, d'accord, même si nous demandons au Sénégal, nous mettons une quarantaine de 14 jours, 21 jours, d'accord, mais on veut sortir ici. Nous avons dit que nous avons nous seeni doom fi parce que ay jeunes fi que de moins de 25 ans moins de 24 ans 23 ans donc ak ay soxna suñuy sœur donc dina xaw a métti si ñoom malgré que ñun xaw nañ Il yàlla dogal nañu am nañ ont guñ ko mën a téye mais peut-être tel n'est pas le cas pour les les les petites et les petites filles donc loolu daal moo nekkoon suñu message ñoo ngi lancé autorité yi li ñu si le plus tôt possible ñu mën a génn fii zone bi ñu nekk zone quarantaine bi même bu ñuy dem si zone parce que la situation s'empire de jour au jour parce qu'au moment que je parle les supermarchés donc au mois de janvier au mois de février mois Chinese New Year chinois dem nañ Chinese New Year donc des dañuy pour décanter situation actuellement stock yi commencé na jeex parce que da ngay dugg dem ci Walmart wala Carrefour li nga bëgg am do ko fa am non seulement le fait que ngay génn dem di rencontrer ak chinois yi ñoom ñoo am virus bi donc loolu rek risque la donc jëm nañu fagu suñuy suñuy prévision mais du doy parce que mënuñ la garantir que affaire bi dina dina dina dina saafara bi dina ñëw si ay ay ay fan yu la ko euh, garanti te mënuñ la nekk mënoo nekk ci ça fait deux jours trois jours mënu ma génn doo génn dem fenn tëdd nelaw ngay def yeewu salon toog sa sa donc loolu situation bu métti la bu ñu situation métti li ñu dund te ñoo ngi lancé appel que amaguñ fi benn cas mais ñaan nañu yàlla am fi cas wala ñaan fi problème parce que rythme bi ñu bu waxuma la cas bu fa amul de mais da fi dégg que ay famine quoi parce que duñ amati luñ lekk parce que prévision yi dina jeex damay damay rappelé wu soxlawuñ xaalis soxla wuñ dara soxlawuñ ay lal soxlawuñ ëpp soxlawuñ dara luñ soxla mooy ko ku ñu jàppale di génne ñu même bu ñuy fay suñu moyen bopp ñun ñu fay suñu moyen bopp. donc loolu lañ bëgg soxla soxlawuñ ndimbal xaalis état moom yaakaar na lépp lu mu def da koy politique xaalis soxlawuñ xaalis. yàlla moom ñu suturaal ñoo ngi yor lu ñuy ñu ngi ciy suturoo soxla wuñ xaalis lan lañ soxla que relation diplomatie bu ñu mun a dimbalee ñu mun a génn fii parce que actuellement ñun def nañ defoon nañ suñuy pexe ba man personnellement jëmoon nañ trouver suñuy solution pour mënoon a génn mais tel n'est pas le cas mënatuñ ko donc actuellement comme ñun ni ñu toll ñu mel ni étudiant amuñ amuñ possibilité boobu génn donc suñ pays rek suñ suñ dirigeant yi ñoo ñu mën a jàppale génn ñu donc affaire bi daal loolu la. wax dëgg yàlla actuellement moom ñoo ngi survivre ñoo ngi lekk lu ñu jëndagum ñoo ngi xaar nag solution am parce que bu amul moom ñaanu ma ko yàlla mais danañ toog ay jour duñ lekk parce que fii tijjeegul te en plus dafa amatul wér-gu-yaram sax ngay génn dem di jënd ci dara y a des yoo xam ne jot nañ leen a tëj bi mooy que tëj waxuma la tëjati ville bi de tëjatuñ ville ville bi moom tëj nañ ko mais université yoo xam ne tëj nañ leen étudiants yi tëj nañ leen si biir ça veut que mënatuñ génn mënatuñ dugg donc euh, am na yeneen étudiants étudiants université yoo xam ne ñoo ngi leen di jox lekk 11h nga wàcc ñu jox la añ midi nga wàcc ci suuf donc euh, di di moins quatre 16 heures nga wàcc ci suuf ñu jox la euh, lunch donc man loolu pour man gis naa ne amul hygiène parce que chinois yi comme que feebar si ñoom la jógee ñun dañuy jéem a daw lépp loo xam ne am na rapport ak chinois yi. donc euh, affaire bi daal loolu la ñoo ngi survivre am nañ lu lekk macha allah ñoo ngi survivre actuellement au moment que je parle mais bu situation bi décanté wul fii ak i fan wala ak i semaine duñ amatu luñ lekk parce que amatuñ fi ñu ko mën a jëndee donc nag avant loolu di si egg ñoo ngi ñaan si ni autorité ñu jëm ñoo génne fii ñu yóbbu ñu beneen ville wala soit ñu yóbbu ñu Sénégal parce que bu bu bu ñu waxantee dëgg rek nekkat China wóorul parce que feebar bi fépp la. sagam moo ngi wàll di dem di dem ba génn si Europe beeg Asie beeg Amérique bi fépp sàkkumtumaa nga nekk biir China ñun daal ñoo ngi ñaar ndimbal ku ñu mën a génn fii yóbbu ñu senegal loolu daal la ñuy sàkku di ko sàkku suñu autorité yi. soxla ndimbal moo waral sénégalais ya nekk ca Chine yëkkati seen baat ngir góor gi gestu leen laajuñ alal bëgguñ politique ak ku leen génnee ci réew moomee lañ soxla ngir ñu mën a mucc ci jàngoro bi comme ni ko Thank you.